premier rakan nag ñeenti sëlmal lay nekk ñaari rakan yoo julli daal sëlmal bu waxtu yi nga xam ne ci la jàpp koor gi di 5 heures 18 maanaam waxtu ci fajar bu taftalee fukki simili ak juróom ñaar fukki di jox dig daje ba suba incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa riwal madadi